Merci beaucoup, chers amis journalistes, pour la présence, malgré l'heure du point de Mais quand au Sénégal est une politique assez spéciale dans son organisation, nous ne sommes pas un parti avec une organisation verticale. Nous sommes très très inclusifs, très très ouverts, et nous sommes surtout une plateforme mature, majeure et responsable. Donc nous choisissons le temps de la communication, puisque nous ne sommes pas dans le contexte, nous ne sommes pas nous sommes dans le factuel et dans la réalité des choses. Il était important pour nous de vous parler aujourd'hui après avoir fait la commission des lois. Puisque hier, le président de la République a fait état d'un décret, mais nous ne savions pas encore par quelle porte ils allaient introduire le nom au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est la commission au niveau de l'Assemblée. Ce qu'on nous a présenté, c'est l'exposé des motifs que vous avez tous vu, et ce d'une page portant modification de l'article de la Constitution. La première anomalie que nous avons notée, en réunion de conférence des présidents et en commission, c'est l'absence du ministre chargé des relations et des institutions. Je pense que c'est assez spécial pour être noté. Jamais, dans les travaux de l'Assemblée, en plénière, en conférence des présidents, en commission, nous n'avons noté l'absence de M. Sambassi, Et pour la première fois, nous avons vu que M. Sambassi s'est absenté aussi bien à la conférence des présidents qu'en réunion de commission. Surtout, surtout que ce texte n'est pas une loi banale, c'est une modification de la Constitution. C'est la première chose que nous avons notée. Ensuite, l'article 31 en lui-même, qui est une violation flagrante la Constitution. Puisque vous avez tous lu comment ils l'ont libellé, mais surtout ils y ajoutent un alinéa qui dit que une fois que le mandat sera prolongé jusqu'au août le président continue l'exercice jusqu'à la des élections ce qui est une atteinte grave à la constitution puisque n'oubliez pas et heureusement l'histoire nous donne raison la plateforme Taxawu Sénégal avec Aïssata Khalifa Sall avait voté non au référendum constitutionnel et lors référendum constitutionnel Beaucoup de modifications ont été apportées à la Constitution. D'abord à travers l'article 27, qui dispose que le mandat est de 5 ans, que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Donc aujourd'hui, prolonger le mandat sur une simple modification de la Constitution est une violation de la Constitution. C'est surtout une violation de l'article à travers ses alinéas 7 et 8. L'alinéa 7, c'était la clé de la réforme du référendum. puisque l'alinéa disait que la forme républicaine ainsi que la durée du mandat sont intangibles. Il ne peut plus faire l'objet de modifications à travers l'alinéa Et l'alinéa est venu confirmer cela en disant que l'alinéa 7 de la Constitution, de l'article 103, ne peut pas faire l'objet d'une modification. Donc aujourd'hui, changer l'article 31, on nous a parlé d'un aménagement, dans sa configuration, dans sa rélecture, change totalement la Constitution et viole la Constitution de la République du Vous comprendrez la position de refus que Taxawu Sénégal emprunte aujourd'hui en refusant systématiquement de voter cette loi parce qu'elle est anticonstitutionnelle et on viole la Constitution. Cette position est en cohérence avec ce que nous avions exprimé en disant que lors du référendum, malgré le contexte, malgré que nous étions minoritaires, malgré que nous étions combattus par notre que ce texte-là Et tout le monde sait que depuis 2019, 2021, nous sommes dans des troubles politiques qui n'en finissent pas. Et au cours de nos travaux, vous avez vu, je vous l'ai ils ont prolongé, ils veulent prolonger le mandat jusqu'au 25 août. Et au cours des travaux, certains ont voulu, sournoisement, en commençant d'abord par le député Edson Diawara du Parti Socialiste, en nous disant que le 25 août, du Magal. Ensuite, le 25 août, Donc il faut introduire en amendement pour prolonger la date des élections au lieu du 25 août 2024 au 25 février 2025. Donc il ne s'agit plus d'une prolongation de six mois comme proposé par le PDS, mais d'une prolongation d'un an. C'est-à-dire le président Maxal va s'allonger un supplément de mandat d'un an, ce que la constitution ne peut pas faire. Et demain, ne soyez pas surpris que la majorité présidentielle ou même le PDS vienne avec un amendement pour dire qu'on n'est plus à six mois, on est cette fois-ci à un an. Et par conséquent, vous comprendrez que nous appelons à voter non. Tahaou Sénégal, par cohérence, par conviction, par posture républicaine permanente, nous allons voter non à ce texte demain et nous ferons, ferons face. Puisque ce qui se passe sera pire que ce qui s'est passé le juin. Le 23 juin, on voulait modifier la Constitution Mais cette fois-ci, c'est pire, puisqu'on a un président qui veut s'arroger un mandat supplémentaire. Ce qui est un troisième mandat. Et vous l'avez entendu hier, il a tellement compris que la première chose qu'il a dit, c'est que moi, je ne serai pas encore candidat. Je maintiens ma position de ne pas candidat. Comme pour faire croire aux Sénégalais qu'il n'y a que ça qui peut vous calmer. Mais ce qui ne nous pas, ce qui ne nous convainc le fait le président Maxal puisse passer un de plus au nous appelons tous les responsables politiques Taxawu Sénégal n'est pas une plateforme qui est dans la contradiction politique qui est dans l'incohérence politique toutes nos positions et nos postures se justifient dans le temps parce que nous avons été assez éprouvés chacune des hommes et des femmes que je vois dans cette salle était avec nous quand Khalifa était maire était avec nous quand on a dit non au Parti socialiste quand on a dit non à Ousmane Tanor était avec nous le jour où on a mené le fameux combat au Pachal pour dire non pas que Khalifa devait être candidat mais pour dire aux gens que le PS ne pouvait pas abandonner sa place dans le champ politique ils étaient avec nous quand a été attaqué mis en prison nous avons rendu visite à pendant trois ans tous les jours nous avons partagé sa souffrance parce que nous connaissons sa femme nous connaissons ses enfants nous connaissons ses cousins nous connaissons son nous parce que nous nous avons le même grade ici. Nous étions là quand il est sorti. Nous étions là quand nous avons créé Yévi, une coalition. Nous avons cheminé ensemble. Nous sommes battus ensemble. Nous avons gagné ensemble. Nous revendiquons notre part dans ce but-là, notre part dans cet acquis-là. Et c'est pour ça demain, la posture qu'on aura ne sera que le prolongement de cette posture-là. On nous prend pas en flanc garde nous. Nous sommes des gens cohérents que nous C'est pour ça que je pointe du doigt tout ces gens de la gauche ou de la majorité présidentielle qui étaient avec nous le 23 juin, qui avaient dit non le 23 juin. L'histoire ne vous permet pas de dire oui demain. Vous aviez dit non, y avait eu plusieurs morts pour Mamoudou Diop, pour tous les gens qui sont morts, pour plus de 100 morts qui sont Demain, ayez la dignité de dire non. Parce que c'est ça, la constitution En tout cas, quand au Sénégal dira non, nous le dirons avec et nous lançons un appel solennel aux Sénégalais. Le moment est important. Vous ne pouvez pas avoir marqué l'histoire le 23 juin. Nous, nous avons fait un combat. Et, et, nous avons accepté ce qui s'est passé, puisque nous aurions pu dire que si nous avons mené le combat de l'opposition à l'époque, nous aurions exercé le On ne l'a pas exercé. C'est Macky Sall qui l'a exercé, un fils d'Ablaï Nous l'avons accepté. Certains d'entre nous ont travaillé avec lui, d'autres ont dit nous ne travaillons pas avec lui. Mais notre espoir, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les difficultés. Et demain, nous disons aux Sénégalais de se mobiliser et de se mettre debout. Vous, avez, vous étiez tous là, lorsqu'il a fallu voter la loi sur le parrainage. Ils mettront des policiers en civil, ils bloqueront. Mais si des millions de Sénégalais et de Dakarois se lèvent, mouvement vers l'Assemblée, vers la place Soweto, il n'y a aucune, aucune, aucune force qui peut vous bloquer ou qui Demain, le Sénégal doit être à la place de Soweto. Demain, le Sénégal doit être debout pour dire que, à Macky Sall, ce que tu essaies de faire là, tu l'as commencé depuis longtemps. Quand tu as attaqué Karim Wade de la caisse d'avance, sous l'angle de l'attaque des biens a acquis, tout le monde s'est dit que c'est une demande des Sénégalais. Quand tu as attaqué Khalifa Sall sous l'angle d'un politique qui n'appartenait pas à Khalifa, mais qui était un instrument au service du maire de Dakar, les gens n'ont de sa vie privée, Le dernier pan que tu veux faire effondrer, c'est le fait qu'il n'y ait de réforme pour les élections présidentielles. Nous devons dire que ce mur doit rester, puisque au-delà de ce mur-là, c'est l'indignité, l'indignité État au Sénégal ne marche pas à l'unité. Merci leen gërëm di jégalu ci tardé bi xëy na heure bi xaw na guddee waaye taxaw Sénégal dafa taamu balaa muy wax. wala balaa muy génne di wax dañuy sukkandiku ci lu wóor démb président dafa gën def discours bi mu defee discours waxu décret la wax wax ne affaire bi assemblée lay jaar dafa amoon solo ñun ñu bàyyi suñu ay député ñu xam bu ñuy dugg sax assemblée fa lañ koy jaaree moo tax tey ñu bàyyi ba commission des lois bu assemblée daje ñu jàkkaarloo jëm commission des lois assemblée dafa ñëw indi dafa am constitution bu mel nii muy modifier article 31 constitution bi. lenn moo ñu njëkk jaaxal mooy que ci travaux conférence des présidents conférence des président mooy boole bureau assemblée ak président de commission yi ñoom ñoo war a wax assemblée la mooy agenda wax kan la ñu def commission kan la ñu war def plénière pour la première fois loolu am le ministre Samba si ñëwul mooy ministre bi yor diggante institution yi ak état tey ñu dem commission guddee ñu dem commission ministre Samba Sy ñëwul. et eh, avant na texte bi am na solo trop parce que texte dafa am constitution la kon ñu bëggoon wax askan bi mais pour la première ñu ñuy waxtaan assemblée le ministre chargé de la chose question yi teewul waxtaan bi ñu indi ñu article bi comme ni nga ko gisee ñoom liñ ci wax mooy dañuy changer constitution bi buñ ko changé mooy que élection présidentielle mu ngi war a am le 25 août 2024 ñu daal ci yokk ne. fii ba le 25 août 2024 maanaam à partir du 2 avril ba le 25 août 2024 président Macky mooy continuer toog nekk président de la République ah ñu ne ah loolu nag dañ doon xaar ndax li ngeen bëgg a def loolu mooy dëppoowul ak constitution Sénégal ndax ba ñu wootee référendum dañ ne woon constitution Sénégal am na loo xam dañ ko changé te kenn mënatu ko soppi article 27 bi ne mandat bi juróom at la te kenn mënu def lu ëpp ñaari mandat yu teg kon président Macky Sall ñaari mandat yu lu muy yokkaat article 103 ne Sénégal république la kenn mënu ko soppi durée mandat kenn mënu ko soppi mu conforme ak jurisprudence 2016 bu conseil constitutionnel bi ne fii kenn mënu fi yokk mandat kenn mënu fi wàññi mandat waaw kon lu xew tey bi mu ngi yokk mandat bi te alinéa 8 article 103 dafa ne woon alinéa bi kenn mënu ko wàññi kenn mënu ko changer kon tey lii ñu bëgg def dëppoowul ak yoon dëppoowul ak droit et waxoon nañ ko démb. lépp lu ñu génnee ñu daañu ko attaqué au niveau de la cour suprême ou du conseil constitutionnel mais li ñu ci loolu mooy taxawaay bi ñu war a am assemblée. bi ñu nekkee soxnaan sax am na ay député yu commencé indi ay jalgal ak ay jaxase député bu mel ne Aïda Sow Diawara bu parti nee na six mois yi baaxul ndax élection yi dafay tombé ak màggal Touba màggal Touba mu am élection ba pare dafay nekk ci période taw bi. boo demee dëkk yu mel ay Ziguinchor ak yooyu naaj nawet bi dafay commencé kon mënuñu def 6 dañu def at kon voté guñ sax waxtaan guñ sax nu ngi dugal ay gàggal pour wax ne li ñuy yokk ci mandat président du 6 at la et je pense que kenn bu nekk si yéen xam ne ne benn bés bu Macky Sall def au delà du 2 avril bés la bu nga xamante ne moomu ko daf ko ropet ci li ko askan bi mayoon moo tax taxaw Sénégal taxaw ne incha allah demain nañu voté non. non a cette la mais li gën a am solo mooy seen jëf yi tey dafa méngoo ak sa jëf yi démb ñun li ñu santee yàlla mooy que ba ñuy indi référendum bi constitutionnel bi boobu Khalifa Sall mu ngoon bi parti socialiste dafa taxaw biir PS ne ah yéen a ngi seen ànd de parti bu mel na PS mënul bàyyi lii mu jàll ndax bu jàllee ëllëg dañuy indil ay difficulté depuis mars 2021 réew mi mënul am jàmm ndax waxi troisième mandat waxi élection waxi politique ñun nag plateforme benn taxaw Sénégal mënuñu nangu loolu mënuñu ànd si loolu moo tax incha allah on va voter non ba pare di woo Sénégal yëpp di ne képp ku taxawal le 23 juin nga ni d'accord ma tey nga gën a war a gën a taxaw ñu ngi naan acteur politique yi yi fi nekkoon le 23 juin di xeex am taxawaay ne lii kenn waru ko nangu ndax nag Wolof Njaay ne na bu sax saxul sàppali bu sax yow mënoo dugal réew mi ci gudda depuis trois ans ñu xeex da nga bëgg a jox sa fi nangu. et incha allah ñi ñaan Sénégalais yi dina wax ni xam nga li ñuy def daañu dugal ay policiers en daal daañu dugal ay nervi mais bu Dakar Ndiaye jógee dem place Soweto incha allah ñëw gunge député yi ensemble ñu porter combat bi avec tous les leaders de l'opposition pour que bu ñu jógee si nii Sénégalais xam ne que c' est un peuple digne c' est un peuple fier c' est un peuple qui est debout et incha allah le peuple